day dugg ci asakay wurus ak xaalis te mooy kee
awusu billah bismillah ku ci masa amee kaset yi ashalul masalik te am ñu ko miine misbaahu salik boo tolloo ca buntu asaka dañ koy yeesal dañoo juum ba ñuy wax nisaa bi wurus tudd vingt cinq grammes te quatre vingt cinq grammes la war a doon ndax dinaar moom mësta soppi ko benn yoon ci njëkk lislaam ak gannaaw lislaam benn dinaar mi ngi doon rek ci tolluwaayu ngaraam ñeenti ngaraam ak kaaru ngaraam ñeenti ngaraam ak kaar daal mooy benn dinaar boo ko defee ba muy ñaar fukk nag kon da lay jox quatre-vingt-cinq grammes kon ku masa yore kaset yooyu mbaa CD yi na jàpp ne njuumtale woon lañu waxoon ca bañ koy yësalagut ak li ñëw ci ibnu Hashir ak beneen téere buñ jot a leeral noonu mooy la wérte mooy nisaa bi wurus biñ ne ñaar fukki dinaar la boo ko dee seet ci ay ngaraam day tolloog quatre-vingt-cinq grammes mooy nisaabam tolloog ñaar fukki dinaar nga war a joxe kaaru fukkeel ba bu doon ca dinaar ya genn wàllu dinaar lay tollool bu dee xaalis nisaabam boo ko bëggee xam doo ko seet ci dërëm yi nga xam fii muy dërëmu CFA dañuy seet lan mooy dërëmu yoon ci xaalis bu sell bi nga xam ne xaalis piir la buñ seetloo nag ñaari téeméeri dërëmi yoon ci xaalis bu sell boobu dana war a tolloog cinq cent quatre-vingt-quinze grammes saa yoo bëggee xam nag xaalisu CFA bi lan moo ci tolloog nisaab ca bis ba nga toll dangay laaj tëgg ba nga xam ne mooy xelli xaalis di ko def ay jaaroog leneen di ko jaay nga laaj ko ba xam benn garaam fii mu nekk fu mu toll bu la ko waxee rek loola ngay multiplier cinq cent quatre-vingt-quinze lu mu la jox rek nga jàpp ne loolaay nisaab ci xaalisu CFA ca bis boobee ngay seetee mel ne boo laajoon tëgg boobu tey jii benn ngaraam ci xaalis piir nu mu toll ci CFA bu nee la deux cent soixante quinze kon deux cent soixante quinze moom ngay multiplier cinq cent quatre-vingt-quinze mu daal lay jox cent soixante trois mille six cent vingt cinq nga xam ne kon ci bis boobee cent soixante trois mille six cent vingt cinq moo tolloog nisaab ci xaalisu CFA bii su ko defee nag waa réew mi moom dañoo gis ne ñaar téeméer yu ne nga joxe ca juróomi dërëm lu jàpp ndey jàppandi la ba tax na daañu faral di def ñaar téeméer yu ne juróomi dërëm waaye nag loolu boo yoree xaalisu ab jirim ñu dénk la ko doo ca sañ a génne asaka te matut lim ba nga xam ne ca la asaka war faaw rek nga seet ko ba mat nisaab ci tooluwaay bi ci yoon nga door caa sañ a génne asaka bu dee sa alali bopp nag te nga mën a wéeg sa bopp nag bu la neexee seet rek ñaar téeméer yu ne nga génn ca juróomi dërëm di tax sax ñu naa ñaar téeméer yu ne juróomi dërëm dana ko wax ca wowale bu agsee foofu nag li ci topp tàmbalee ci wa ahlul xasri ba nga tegaat ci yenti way mën nga koo far tëb rek benn yoon ndax dafa am genn kilifa gu dëkkoon misra seet ci yooyu jamono xeeti mone yee ñu fa xamoon mone bu nekk lan moo ca tolloog nisaab mu daal di koy wax moom itam nag mu woy ko ci yooyu jamono ndax mu amal njëriñ ña nekk misra waaye yow mën ngaa taaye sonn ci di gëstu gëstu yooyu amal la benn njëriñ man ngaa jàll si ba ci li tax ñu naa juróomi dërëm moom ngay génne ci ñaar téeméer yu ne maanaam wurus ak xaalis na asaka ja war a toll boo koy génne mooy kaaru fukkeel boo ko defee fukki xaaj benn xaaj ba nga defaat ko ñeenti xaaj ñeenti xaaj yooyee benn boo ci joxe mooy sa asaka mel ne ñaar téeméer boo ko doon séddale fukki nit kenn ku ne ñaar fukki dërëm lay téye ñaar fukk nag boo ko defee ñeenti xaaj xaaj bu ne day doon juróomi dërëm loolu rek moo tax ñu wax loolu bu doon ci wurus nag moom tamu di ay diinaar muy ñaar fukk kon genn wàllu diinaar mooy tolloog asakaam ndax ñaar fukk boo ko doon séddali fukki nit kenn ku ne ñaar lay téye ñaar boo ko defee ñeenti xaaj muy yent genn wàll wala moo tax ñu naa genn wàllu diinaar mooy doon asaka yi ñaar fukki diinaar waaye rek ci gàttal mën nga ne sa xaalis nu mu toll rek soo ko séddalee ñeent fukki xaaj lu génn rek loolaay tolloog asaka ja maanaam boo divisé par quarante lu mu la jox rek loola mooy tolloog sa asaka mel ne tey million boo ko divisé woon quarante da lay jox vingt cinq mille vingt cinq mille nag fi mu toll mooy asaka yi benn million te it boo defoon ni ñu wax jël benn million def ko fukki xaaj xaaj bu ci nekk day doon ñaar fukki junni ñaar fukki yi boo ko defee ñeenti xaaj xaaj bu ne di juróomi junni gis nga ne kon ñoo yemoo donc kon daal fii moom daanaka duñ faral di yore wurus wu ñuy asakaal xaalis bi rek lañ ëpp asakaal lim ba nga ci am na bu xasee mat nisaab da nga koy diviser par quarante da nga koy séddale daal ñeent fukki xaaj benn mu benn xaaj ba tollu rek loola war a doon sa asaka wurus ak xaalis nag moom bala caa asaka war at ma mat ba nga ko moomee dem ba am at ci sa moomeel loolooy tax wurus mbaa xaalis asaka war la ca mel ni tey boo doonoon rekk xaalis lu mu bari bari lu tax asaka war ci lu may bis bi nga ko doon ñëwaat ci déwén sa te fekk mu nekk yow tamat nisaab boole ca léegi mu ne nag ak bañ a amee ay bor wurus sa xaalis moom bu la ca asaka waree te fekk nga amee bor yoo xam ne soo fayee bor ya day jeex rek mbaa lay des du mat nisaab kon asaka wàcc na la ci wurus sa xaalis wa nga yor ci kaw nag nga bañ yore yeneen matériel yoo xam ne asaka waru ca mbaa nga ne yeneen i moomeel yoo xam ne asaka waru ca nit ki ay kërëb ay otoog lépp loo xam ne rek asaka waru ca te buñ ko seetee dana war a mën a tolloog sa bor mbaam ëpp ko rek kon faaw nga war a génne asaka ci xaalis kaas ba nga yor mel ni commerçant yu bare bari daañu faral di ameel ay bor banque yeeg ñeneen mel ne buñ seetoon lañ yor noone du mën a fay bor ya mbaa ca lay yem waaye nag am nga ñi am lu mel ne ay kër ak i oto ak i xeeti suuf ay teleeg ay rajoog xeet yi nga xam yépp te asaka waru ci dañuy seet yooyee suñ ko seetoon yépp ndax dana tolloog bor baam déet dagam ku ko seetoon motale bor ba rek asaka daldi war ci lañ war ñoom ci wurus ba xaalis mel ne ku waroon ñetti million amee borut ñetti million boole ca waaye nag am na ci xeet suuf loo xam ne ku ko jaayoon ba mat ñetti million ba mu ëpp ko asaka da koy daldi war ci ñetti million yi mu yor loolu misaal la ci rek bu doon nag asakay mbay moom ak asakay jur faaw asaka da cee war su fekkoon ne mbayam mënta génne ay borom it tutee mbay ma su matee juróom benn bërigo rek mu war caa génne asaka boo waroon ak jur xar mbaa bëy mbaa nag mbaa gëléem te li mu am lépp bu ko defoon ci ay borom it du mat tutee asaka war ko ca jur googee ndegam jur ga mat na nisaab wurus ak xaalis dañuy ñaari qualité mën nañoo weccente ci booy joxe asaka li nga war a joxe ci wurus man nga koo seet nam toll ci xaalis nga joxe ko ci xaalis te téye sa wurus la neexee itam la nga war a joxe ci xaalis nga téye xaalis ba te seet lam toll ci wurus nga joxe ko bu boobaa nag dañuy jàpp ne dërëmi yoon yi fukki dërëm yi nekk day tolloog benn diinaar nga xam ne ci yooyu jamono su amoon fukki diinaar am téeméeri dërëm asaka daa koy war ndax day mel ne kenn ku ci ne am na genn wàllu nisaabam su boobaa nag bu ko neexee li mu war a génne mu génne ko ci xaalis bu ko neexee itam mu génne ko ci wurus bu ko neexee itam nag ku ca nekk lam ci war a génne mu génne ko ca fal su koppar ni ko wala fi firee day mel ne dañ koy wax rek jublu ci xaalis ne bu ñëw diw bari nay koppar mooy bari na xaalis waaye ñoom dañ ciy jublu buñ liggéeyee ci përëm wala ci nikkal lu mel ni ay PS di ko jaayante ci bitig yi ni ki boo seetloo fi mu toll nii sunu xaalis bi dërëm yéeg juróomi dërëm yépp du xaalis dëgg-dëgg dañ ko liggéeyee ci përëm noonu rek def ko mone di ko jokkalante ci jamono bu jëkk ba dañ daan jëfandikoo wurus piir ak xaalis piir ci buñ dee jaay ak jëndante di ko fayee lañuy jënd mu doon njëg léegi nag li ci ëpp dañuy defar ay këyit wala ay pièces yoo xam ne xeeti monnaie yoo xam ne dañ koy liggéeyee ci përëm mbaa nikkal mbaa leneen rek def ko muy njëg nga xam ne ci la ñuy jëfalante booy jaay ak booy jënd bu fekkee ne nag loolee di ay këyit mbaa muy xeetu përëm mbaa nikkal moom rek fu nekk taxaw taxawaayu xaalis di ki suñ jamono ji loola lañuy jàppe muy jëmmi wurus ak xaalis piir nga xam ne moom lañuy jëflante di ca fay booy jaay ko jënd ca la ñuy génn itam asaka ja li muy wax ni nag mooy bu fekkoon ne yett yépp dafa tase nga xam ne buñ dee jëflante ci jaay ak jënd yu ko nuru daañu di fayee xaalis piir mbaa wurus piir mbaa leneen loo xam ne du wurus du xaalis maanaam loo xam ne daal daa bàyyi ko ci përëm mbaa nikkal waaye du xaalis dëgg-dëgg du wurus dëgg-dëgg yett yépp tase ba ñu cee jëflante wuute ba am foofu nag mooy soo yoroon xaalis dëgg-dëgg mbaa wurus dëgg-dëgg asaka war ca ndax sañ ngaa téye yooyu jamono sa wurus ak sa xaalis te seet la nga war a joxe asaka nga génne ko ci loolee ñu tuddee koppar nga xam ne ma nga bàyyi ko rek ci turam mbaa likkaloo yooyu te yow nag sa xaalis ak sa wurus dëgg-dëgg foofu la ñu wutee wax ji gën a wóor nag mooy nee na ndegam moom nañuy fayee wurus ak xaalis ca yooyu jamono muy njëkk biñ dee jëfalante koppar it noonu daañu ko def noonu bu ñu bañ la nga war a génne ci asaka ci wurus woo mbaa xaalis ba nga téwe ko te seet la tolloog moom ci xeetu koppar yooye nag nga joxe ko muy sa asaka lañ sukkandikoo daal mooy boo ko defee itam mu doy waaye nag def nga lu ñu sit bayin ngaa def moo gën loolu mooy benn wax bi benn wax wax ba ca des moom day wax ne déedéet ndegam moom wurus mbaa xaalis moom nga war asaka war ci ca wurus wa mbaa ca xaalis ba ca ngay sañ a génne asaka waaye doo sañ a téye sa wurus sa xaalis dem di joxe asaka ci xeeti koppar yi xew foofee